salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àddina yéen ñi ñuy àndal saa su nekk seen émission préférée zéro stress dikkati nañ nag seen biir kër seen biir salon fi mu leen di gën a neexee li ñuy ñëwee nag tey di leen ziar bu weex ci àjjuma bi nuyu naa bu baax ñi nga xamante ne ñoo ngi ci hôpital te ne ñoo leen dolli vie nuyu naa leen bu baax ñu nekk ci prison yi tamit ziar naa leen bu weex te di leen ñaanal yàlla mu génne leen fa nuyu nañ kilifa diine yi kilifa aada yi suñu maman yi papa yi nuyu nañ leen bu baax tey nag ci àjjuma di leen yaakaar ne dañ leen bégal nag balaa ñuy wàcc fii ci plateau bi am ni na nga def. Euh, di nuy ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu téléspectateurs yi di nuyu ñi nga xamante ni tey jii ñoo nekk euh, fi nga xamante ni mooy hôpital yi comme ni nga ko waxee. di nuyu ñi nekk ci prison yi di nuy ñi nga xamante ni ñoo nekk ci mbedd bi dans la rue di nuyu ñi nga xamante ni ñoo nekk si tataay ak rapide yi ñi nga xamante ni tey jii wax dëgg na yàlla ñu ngi si restaurant yi di nuy waa CESO yëpp nga xamante ni borom supp kànja yi neex yi ñoom ñëpp maa ngi la ñu nuyu di nuyu ñi nga xamante ni ñoo nekk si rii di nuyu raxaskatu dàll yi di nuyu ñi nga xamante ni ñoo nekk ci daayira yi di nuyu ñi nga xamante ni ñoom laa waxoon tey ci àjjuma ji ñi nga xamante ni mooy suñu imam bi nga xamante ni Diop Bilaal di ñi nga xamante ni mooy imam Amadou Pouy di nuyu ñi nga xamante ni tey ji vraiment ñoo xamante ni ñoo ngi si koñ bi ak ñi nga xamante ni ñoo nekk si arekaar yi di xaar bus bi ak tataay yi di nuyu ñi nga xamante ni ñooy waaj jël taxi yi ñi nga xamante ni tey jii ñu ngi fee si grand place amuñu xëy amuñu gott amuñu polt di nuyu ñi nga xamante ni tey ji ñooy g dam yi di nuyu ñi nga xamante moderniser puant di nga xamante ne am ah. na solo li nga nekkee lan la ci noonu lañ leen di nuyoo saa su nekk nag di ànd ak yéen nag fii ci zéro stress noonu la ñuy def alu sax dem seetaan benn clip daal dellu siwaat ci bu leen di neex ah. noppi ña dem na. Ah, di nuyu maman Ndeye xam naa maman Ndeye la maman Ndeye ñëw na. Ah. nee na ànd mi ñëw sa anniversaire bi maa koy pare. tegal ma xaadim bu xaadim bu bees bu ngoyaan day day ndew bis bu rëy ay jaa.

non allo yéen ñëw di def soirée 15 mars Duda Seck invité LCS kase. 15 mars. waaw. Xadim Boub. Xadim Boub waaw ak ñi ngoyaan ñëpp ñuy di Saalum. ñuy di Saalum. waaw Saalum Saalum yi ñëpp di war a dem ba foofu. ñëppay dem fan. ñëppay dem Duda Seck le 15. le 15. waaw. Eh, eh, eh. le 15 dama loolu ma gis caay ju gàtt xartum lay sol. ah ñuy di Saalum. ñun ñëppay dem.

alu lu nek ak ñun dara neexuñu ci doo ko wax mu tégal la xadim mais nañ nañ wañi nañ wañi ki bi nañ wañi tableau bi tableau ban tableau ki bi tableau baa ni pap Samba xajñu ko motax gisunu li ñuy def lepp di pap Samba da nga njool torop li nga nekké lan la alu dañuy dem seetaan euh, na la tudd sax lu la neex ñu daal delu ci wat ci bu lay neex waye chéri père bokhar wuyul allo allo allo. waaw. ah Pape Marama Rama laa mais bàyyi li ngay wax. billaay ci bàyyi li nga wax sama xarit bi. danga ma koy hmm? defalee rek. tax rafet Rama defal dama ko bëggoon yenn nag di daw ak moom. dëgg la. <laughs> mais su ma koy bu max tamit daf may neex sama xarit bi noo tudd. maa ngi tudd Mariama. Mariama fooy wootee. parcelle laa na waa parcelle ak noo koy dundee. waaw waaw parcelle yi eh, ma ci ñoom dafa ëpp. <laughs> mais tegal la tey baa ma defaral la ko. tegal toog. ku toog noonu. ah Mariama. waa d'accord yow bu la dara nag loo bëgg rek laa lay defal fu mu toll nii. Eh, ah loolu ëpp na ci man xale liquidité man mii la xale bu pare bi. am ni million. man xëccoo ma ko kenn concurrence waaw xam ni loo bokk mbongo yooyu. Eh, waxal li ngay wax ba pare nga coupé yow war ah sama xarit Mariama nag yaa ngi may bëgg fréquenté war naa wax am di lu mbokk ak mongol. lii da la wax. xëy naa la yàlla yàlla ma yàlla àtteeg yow bëccëg la ngay soxote ñaan. danga war a sama anniversaire sama anniversaire invité wu ma la. waaw le 14 février. maman Ndeye ñëw na. ñëw na mooy def anniversaire bi. maman Ndeye waxoon nañ day anniversaire day. Eh, du dem du dem de bàyyi leen liggéey di def eh ma eh. eh. eh waay. waaye kii du yow. am di la. eh waay. am na loo doon def nii eh. la moom. allo. dem na sax. allo eh allo eh. fi ma nekkoon gisuma woon bu baax kooku am di la wala du am di allo delloo ma. Eh, allo tegal clip waaye nga bàyyi nga def. man tey la ma leer yow la. c'est que dafa am ay kër gi respecté wuñu nit quoi. ah am na yaa ko def. mais lii waxuñu ngeen teg ay image yi dana ne waaw man ci salle conférence laa jëm. salle conférence fan. fan. salle conférence. anam anam. ngay dem dafa leen ko en direct wuyu bi nii. man laa dem doy sa sa sa lu tax tele bi respecté ma. conférence ba ci ñoom Seete Diallo. Seete Diallo laay jëm wax ak moom. waaw mu defal la bëgg xam la moo tax télé bi respecté wuñu ma. respecté la te te respecté la teewul ju teg la nii. bu fekkee léegi ku am looy looy naqar sa naqar bu ne ville nga koy jooy jee. Ah. man sama naqar man bu soobee yàlla man man maa ville man naa dem man. waaw demal nga xool ndax ñoom mënal nañ dara. anaam yéen may déglu DG Général. kama bokk classe. awa kamara awa di nga nag Awa Kamara si nga yow yow dama yaakaar ne Awa Kamara yow di nga yow yow yow yow jox yi yëpp Awa Kamara dégg naa nag yow yow yow comme bi ma waxee damaa bokk yow classe ba léegi di amoon lay def lu du jël samay image yu koy génnee Awa Kamara yàlla ma yàlla àtteeg yow moo ñu jox yi yëpp nag ñu koy def moom ba ma baalu àq du baax si yow de monsieur Mbodj nag nee na yeneen yi mu ñu jox lu tax teguñu ko ba tey mu ne ko man damaa rus la ma xamal monsieur Mbodj ëpp na mbooj xamuloo ko dara. eh booy mbooj. booy mbooj monsieur mbooj. monsieur mbooj ñu naan booy mbooj. moo muy xale bu ndaw. ii monsieur mbooj. la ma ko xamal la bari fàtt na fàtt na suñu salsaaro Pape Fall iya, ay am ah ah fi moom ku fay weer rek ñu weer la. kan moo weeru la de Awa Kamara moo joxe vidéo yi. Awa Kamara moom li ma ko xamal moom mi ngi tege mi ngi nii di tege xaar bu si kanam tuuti ma wax ko ko xamal lépp. àdduna waaw kabar bu fekkee ne da ngay nekk ville boobu di envoyé email yi muy ñëw léegi loolu dina dañ tey waaw. nuyu moom ah. madame Wade su fi. madame Wade sama xarit la. waaw kooku moom xam naa si yooyu. ak madame Dieng tamit ak. yéen ñoom ñëpp nee na ñëw daal say xarit lañ. c'est mon ami. un an. un sama xarit benn bakkan lañ mais Awa Camara ak DG. ñoom gis naa pourtant moom moo ne moo lay jox enveloppe lundi seete Diallo. loo koy def nii da kontaan. am bul jooy da nga gaaw a jooy am bu fi jooy de. nga ne bamtul wax de. Eh, bu fi jooy de. bamtul wax de enveloppe rek la lay jox ngay jooy. barki yàlla. barki yàlla ngay jooy. lënd la wax nee fii la la koy indi ci plateau bi nga compté ko ñëpp gis ko. ak sama anniversaire tamit li mu war a jox. ah da nga ëppal nag benn dong la waxagum. wala mu téye ko ba anniversaire. Ah, ah, ah, du nga téye ba lënd. si noonu la ñuy dem daal di seetaan pub daal dellu soit seen plateau zéro sëñ Bass yàlla na yàlla defal jàmm yaa ngi defal sëy yëpp. li ngay naan. obi obi nekk kebe li nga marron caramel lan la dafa ëpp ci xale. tonto ko mbaraki ci bax sama xarit bi sañse rek ngay def di nuyu kadé jallu bubu ah bu bax ce longen zaak nga xamantene namul dara ñol sama xarit bi loko ko mo moo lay yo yow nuyu nako bu bax di diko di ziar bu wér sama xarit la kol crise am di man nak am di tey li nga sañse daf ma neex motax mo bëggon nga juk taxaw ko wa adé eh, lay fal rek lo xam bay fal xam nga ku xam am na ñoo xam ne Baye Fall la Baye Fall man je suis Baye Fall profondeur Baye Fall. véeri ngay wàcc ñu gis la en direct wuyu lii yow am di lan nga namm yow ci bote. ci mignon. waaye xale bi jigéen bi fi woote léegi naa mel ni mongol lu ma bokk ak mongol yooyu kooku dinaa ko wax boppam. tey bu ko wax boppam tey laa koy rek moo ko boppam. parce que yabaate mënul weesu ah magum jëmm li guy bu mu ba ba mu métti ko. lan la ko sax sapalin. Michelin Michelin. pourtant yow yow benn nga ak Michelin xamoo Michelin. man bàyyi naa antenne bi. wóor na eh, Michelin xamoo ko. musalay mooy mooy mooy mooy. puna puna puna yi def nii. waaw roulé loolu noonu. benn ngeen. yow nga mel ni poupée yi ñu may seen xam nga tic tac poupée da nga may seen tic tac xaaral ma la seen. xaaral yow defal ma de jogal jogal ma la jogal ma la. jogal rek ma la. waral ginnaaw xoolee nëbbi mooy moom la nga may seen mbo da nga wañaar rek xoolal mu mu ne teg daan nii. ba may dox nga mel ni kuy vivre xam nga yow yow da xala yow bu yow jagat yi parce que man man ba ma Michelin. kan mooy Michelin. yow. waaw moo xati loolu. Michelin lan moo ci nekk. Ndiaye suba booy ñëw indi ma ñaari paquet paquet pétale pétale pétale Ndiaye xam nga may dégg xam nga ma booy ñëw suba indi ma ñaari paquet ma si studio bi yow ya, pétale lay réglé. man maa namm daray yow pétanque la la ma entraînement <laughs> ah, allo xam nga kii wéeru la léegi nag bu ñu fa jógee xam nga tey comédien yi yéen soo bëri ngeen ak may teg jox naa leen sànq benn image pour per bu xar jox leen ma père bu xar. xam nga yow père bu xar sama chéri la nga teg fi di ko. jox leen ko séeréem rek moom mu jigéen naa ma man léegi père bu xar la muy niróol léegi nag jox leen ma père bu xar léegi nii ah ak doyen lu ñuy def ñoom Voilà, parce que comédien, dans les services, ça veut dire comédien, il place sur lui. Voilà, les mains cassées de ma fille. Voilà. Je vais aller m'appeler pour moi. Et sans, sans, fouillette.

di jéegul rek ah. waaw man ki damaa bëgg xam ki ki kii noonu ndax man sama chéri la wala déedéet. ah ñaata waxal. père père daal man daal. léegi yaa ngi koy nopp ba léegi wala noppatoo ko yow. samay jooy sax. yow yaa ngi nopp père bu xoro wala yi eh, muy calli calle. xolo ay eh, mais père bu xol il finira mal. xool ko yow ni mu dindee manteau bi. di saan. majorette da lay nduróol ak dàllam yi. xoolal waaye ay maam naqar. xoolal juuti bi tàng tàng <laughs> ay fam. isaan. lu tere doomaram. <laughs> dama feebar. dama nangu li lépp. <laughs> xool ko yow ah wong bu ndaw. non xàppataatu kii comme tranche bi ko mën a kii xool yow de kii. sama ndey yooyu am naa ndeysaan. père de boo bëggee dégg dëgg rek toj nga fi. commentaire loolu laa ci wax ci. man du ma ko commentaire. non wax ci. du ko commentaire. parce que man xàmmee ma man xàmmee woon sa jëkkër parce que lii ku ma waxoon père bu xam dina ko def. ci mais liggéeyam lay def. ah ma ne kon ma maa je fais quoi. moom dafa nekk def spectacle yow da nga demoon defi ji concert fële ay première partie. ah spectacle ak concert c'est pas la même chose. yow nga nanti ci garab bas yi yow yi war nga ci nan wa seigne bas tamit sama tension bi yéeg ka wacc tamit do ma jox garab. mi ngi ni bi la. bi bi. binduñu ci lol de. do oh, dafa ndak tee ma ko dama koy lek legi birid ni non sëñ bas neen koy lek do génn sa kër de. non dafa ndak dama lay expliquer notice bi. dafa ndànk la neena do xey da ngay tok sa kër lek ko fa. dafal naa kii boo ko dajee ñam ci. Euh. te tension bi da mais pangale boo lekkee yëpp lañu wax nga toog sa kër. Mm. mais da nga koy dajji ñam ko. na am solo bàyyi ñam ak yooyu yëpp dama damaa ne ci mbedd te sama kër dafa sori fii boo cité Elisabeth lu ne mun na maa dal ci diggante bi. ñun ñu jënd ñaari oto yu bees mënuñu leen yóbbu. ñan ñoom du ah. ñu yóbbu oto yu bees yi te bañ ko indee oto yu bees yi dañ ne ku nekk maak yow ku ne am na benn. am nga benn waaye boobu ba léegi da joxuñu ay oto dégguñu ay oto dégguñu dara waaw. loo wax Alassane ya bayil ma ki man Alassane man mom mom lan la ci ñun nii mom mom moy suñu réalisateur ah, wala moy suñu lan pridu yooyu pridu yoy li pridu xam nga day bëri ruq yow waxoon nga ko fi kanam gi melni ki kii pridu xam nga léegi mom kanam gi comme pridu xoko Alassane te mu tax naa <laughs> Alassane bëgguma la bëgguma la da ngaa cité ba yaq war ngaa mëna a sangu nga am mitoman mitomani ah am nga mythomanie liaison feebar mythomanie ma Alassane daal man dal ci fini la mal ba wuyul allo allo ça va. oui ça va. ende de. oui ñu fi gërëm yalla bëgg señ Bamba. may ngi keur Kër Massar. ah Kër Massar ah sama fan si Kër Massar yi la. ci loo leen ne. may ni nuyu Abdi. mais yéen ci jamm na mëna namm naa leen de. ñoo la la ça va yaa ngi si mu ngi fa. maa ngi nuyu sama xarit boobu. Adama Sarr laa wax. maa ngi kontaan si yéen. man Adama Sarr. ah. Adama Sarr. Massar ah de gisuma man kër rek laa ci xam man. waa ah quartier euh, moom de moo ma lay laaj. <laughs> Ada Massar. non gis non Massar nag gisaguma ko ma gisee naa la ko wax dégg nga. d'accord waaw wuyu sa xarit bi yow. waaw sama xarit na nga maa ngi nii rek ci lo nekk.

madame waaw nga wax Ndeye Madina sama doom bu ndaw ba am deux ans et moom rek la bëgg. bëgg na ku bon gay na ndax da koy gént de ko xoolee la bëgg na ku bon. Ndeye Madina na géej xam nga gay na bëgg ko. yow bëgg ko mu defa ko ay mocc ndax da koy gént naan koo bëgg Ndeye Madi ñaaw ma expliqué ah. la Ndeye Madi putal la ah. moo xam ne màdd moo la gën a populaire Ndeye Madi dañoo dem keroog ca mariage des ba. waa mbedd mi ñu naan ndey Madi moo ñuy daanal xale yi def ndiiraan bu rëy boo xamante ne. da lii de am na bu ko gisoon xol bi dara dootu ci des. ah ak fier. kan yaa ngi di ko wax ay gént xale yi def ndiiraan yarax ñëpp génn. wur na yàlla ma kontaante nay maa mu def trois pièces am nag mel bu sobalé ci bés bi. yow ya, lo def. kan man xàmmeewu ñuma ma. ñuma ñu ma allo. allo. allo waaw Amdi. waaw. Eh, Rama maman la. oui. <laughs> na ngeen def. kooku maman Ndeye. waaw. Bidio anniversaire bi la ko doon sa. yaa ngi lay di seen bool si. maman Ndeye. namoon naa leen. <laughs> na ngeen def. namoon naa la. maa leen raw. seet te te te te moo woon rek ma xam ne xoolal vraiment je ne suis pas dans mon assiette. déedéet kay. le 14 février la anniversaire Addu Million zéro stress dañuy prévuté wàllu ngénte plateau bi fii. si si si a de problème. loolu ah. ci yow la des waxoon naa la ko. ah naa la woon ci yow la des mais comme voyage bi daf ma bettoon loolu moo tax. mais le 14 doo voyagé. di bu ma ko naroon sax fu mu ne fomm naa ko. ah boo ba léegi ñu koy annoncé de fii lay xamee Sénégal yi ma jox xamal bi ma jox ko kaddu ku ma jox ko kaddu yi dinaa yàq sa dara. <laughs> yow moom bu la. kaddu yi en direct laa bëgg muy ñëw en direct. ah. kaddu yi laa bëgg muy ñëw en direct waaye enveloppe bi ma ko waaw mais mais léegi dama leen di ziar. ñoo ngi delloo eh, ziar bu wér maman ramadama naa la bu baax baax. maa la raw maman dégg naa changé nga Ahmed dellu nga ci Babacar waaye. ah man kat maman déggatuma Ahmed man moo tax ma dellu ci Babacar rek. waaw mais xam nga voyage ji rek moo koy waral. dégg nga waaw na may yóbbaale maa mais lépp benn la déedéet bàyyi rek ma jàppale Babacar. waaw ah, ah, ah, <laughs> waa eh, waaw maa ngi leen di ziar dama ñaari maa leen di ziar. Rama ma leen ko bàyyile Ahmed ma leen ko bàyyile. jeex na. kon nag contact direct laa koy def rek nii. donc correct yàgg ci yow la wax ñu kañ la indi waru bi. ah. wax ñu kañ la waru bi di ñëw ñuy. waru bi mun nga ma woo hors antenne rek mu jël ko. jeex na bu ko defee bu ko defee day ma problème. waa yow mbaa ma doon may dédicace. yow moom xam nga da ngaa bokk ci man. waaw loolu la dama bokk ci yéen de vraiment. waaw da ngaa bokk ci man moo tax saa su nekk dama naan waa maman Ndeye fan la ne ci àddina. gis nga waaw sori rek mais man su ma nee Sénégal sori ah, da ngeen may dégg. waaw loolu moom am na yow da ngaa ñëw bëgg nag ba mu jeex. waaw ñoo far man ci kër gi laa bokk daal application bi. application bi waaw maman Ndeye def nga application bi sa téléphone. ah. application LCS bi ba téléchargé nga ko sa téléphone. non non mais dinaa ko lii léegi incha allah. léegi nga koy téléchargé di ñu seetaan en direct partout dans le monde. incha allah y' problème xam naa damay déplacé wu ñëw foofu pour ah. am di installé ma ko sama iPhone. waaw suñu technicien yu ay Zaal info ngi nii loolu rek lay liggéey. Ah. d' mais léegi da ngeen may wax tam fu télé bi nekk ndax bëgg naa fa ñëw incha allah. incha allah. noppil maman xoolal ci VDN bi boo ñëwee ba ci cimetière bi rek. waaw. boo gisee rek di nga gis ci kaw ñu def LCS def gaynde gi foofu. te tegtal damaa boo jëlee taxi ne ko gudd ñoo tax so xanaa ñu ne kon siège Macky Sall bi. waaw. ah ah ah waaye publicité bi dinañ ñu ko baal rek. waaw Rama eh gudd rek ah. waa Rama. oui maman. waa léegi man damaa bëgg nga invité Ndickou Thioune waay. yow maman Ndickou Thioune sama maman la kañ nga bëgg ma invité ko. ah xanaa ci yow la des kay. si semaine bi maman fu mu nekk ci àddina dinaa ko jëli ji indi la ko fii yow loo bëgg yàlla nay jàmm. waa kay du am na numéro am naa numéro sama maman la ñoo bokk dëkk Bambilor. mën nga ma ko jox ah, c'est bien waaw kon léegi invité ma Ndickou Thioune. dinaa ko invité maman dina ma neex torop naa ko invité incha waa bu soobee yàlla may woowee léegi ni ko tur ak laa naa coordonné comme ñun ay saalum saalum lañu vraiment ñu xam affaire bi. yow moom invitation d'honneur laa lay jox ci nuyu di saalum bi xadi mbuub di def. waaw yow loo bëgg yàlla nay jàmm yow nee la yow da bokk ci man. duuda sekk laa lay invité jox la invitation d'honneur le 15 incha léegi soo leen coupé incha soo émission bi jeexee dinaa leen woowaat. waaw am di le 14 incha allah xam naa lan damaa bëgg a xam lan la bëgg a def euh, comme dige bor la ñu boole yëpp rek defar ba mu baax. voilà léegi nag li ma bëgg def mooy. mais Rama Khady Ndoye moo ñuy solal de na nga xam loolu. yow Khady Ndoye maman bu la su ñëwee rek. waaw ba maquillage la rek. waa ñun non maman daf ñuy transformé boobaa. waaw après xam naa dinaa jéem a coordonné nga jox ma numéro am ñu xool ni ñuy def. léegi laa la koy jox sax en direct yow loo bëgg yàlla nay jàmm. nga defal ma début le 14 lu war a am yëpp bu dara manqué. ay maman loolu dafa ëpp ci damay jooy. maman damay jooy. commerçant bu nekk euh, bu tudd yow yaa iñaan rek bi ma rek ma bi man mii la koy jox bëri na léegi ma bàyyi ligne bi ñu ko soxla bëri après ramadan damay ñaan damay ñaan waaw laa bëgg Omaro bu Cheikh Béthio nga may ma moom laa lay defal léegi maman naa ko maa ngi koy ziar bi waaw waaw kon mbaax maa ngi ñëpp baaxet bii. Eh, am di dinaa la woo ci kanam yaag Rama incha allah. waaw d'accord maman. merci beaucoup ma Omaro dégg nga. moom lañ lay gunge léegi ah, alu. gungeel sama maman ak Omaro. Omaro te mën naa war war ngaa am doom de. waaw waaw. njukkal la war na. sargal la war na. Cheikh de Coco nu sangam ba Cheikh Saliou am na. jaajëf. la war na sargal la war na Cheikh bi ci turam sangam ba Cheikh Saliou amoon na jaajëf jaajëf tey jii ma way la ndax sa jëf ji rëy na tey jii ma way la ndax sa jëf ji rëy na ndaw yaa ngi nii naroon na bon nga def ñëw yàlla ñëwoon sama kër ca koor ga bàyyi fa sa carte carte bancaire. ah man ma ne yii bul màttatu sama yaay yow am na yow yëgul sama yaay fa gaañ. yii. jox ma ki nga dendal kii nu mu tudd fi mami. man xaw ma la de. yaa ko gën a xam allo. waa mama. wuyu ma maa ngi def. maa ngi fi. yow ku baax nga. ay mama kenn du yow. ma damaa bëgg a wax ma lan la def sa kër bu ko defee ma mën ko koo wax léegi. moo ko def. waa. dégg waa. moo gën a wax kan la xam na ma. yaa ko gën a xam kan la yow bu rafet. yow kii kay man dama xamul lan la sax mu daanu sama kaw nii loo fa def këram. kii jarbaatu Ablaye Wade la Fara Wade Ndiak Daara Wade Ndiak yow réew mi da ci am cër. may mun naa ñi ku baax a kii jëkkëram sama xarit la. mi may baax de. waaw da baax ba tey di nga wax de. jëkkëram sama xarit la. dinaa wax. ba tey dina wax de. Euh, keroog ci weeru koor bi daf maa invité. Mhm. tegal ma ay mhm. lu baax. Mhm. waaye asa doom di yow. sa doom ji ma déggoon si naa. ah. carte da nga leb daw am. ma jot leb. nit kenn kenn nit ba mu sës bu dama wax ku baax nga ku ku yaru nga wala nga bàyyi noonu rek yooyu tam. léegi yow da nga faa daw loolu laa bëgg xam. dafa daw. képp ku bëgg nga ma ñëw fayal may mu ne mii mu bàyyi may mu ne yaa bon may mu ne te waaye bàyyi naa la yàlla. yaa fa leb daw de. bor bi si moom jàppal ni kenn ko fay. loi ex 152 la la yam waaw mais mu ne bu ne nii ngay woote eh, jeex na nag nañu tàggoo ba suba ah, yow kii lu mu la ne. sang na jaajëf. waaye yaay xel maa koy dox neex sang la war na jaajëf. ma nu may nu may terminer tëj te ñibbi. sang la war na. koy sang yow. jaajëf. nañ tàggoo.